sëriñ Modou yaa ngi waa daayira sa sa Chine commande bi nga xam ne yaa ko jiite sëriñ bi nee na ñu ngi ñu bu baax di la sant di la ci sa yitte sa ndax bokk ngeen ci sëriñ nga ne trop féete sëriñ bi la dogalu suñu borom waaye nga xam ne sëriñ Touba ci liggéeyal ko ci lañuy jël moo tax nag da fottiku laxasaayu bàyyi sa yitte di mu fenn toog ci dëkku Serigne Touba bi di ko liggéeyee ci lii nga xam ne mooy war mooy dëkk bi ndax ku ne xam ne Serigne Touba mboolem li mu bëggoon rek ñaan na ko ci dëkk bi Touba te lépp suñu borom may na ko waaye la mu waxoon ci jumaa ji rek mooy li am ci biir yëpp daa waxoon ne bu ngeen ko liggéey bi malaaka yi dinañ wàcc yow liggéey bi kon nag dëkk bi itam li fi Serigne Touba ñaanoon ci ñaan suñu borom mu sol ko ci dëkk bi ba wax ni wa maskani salli minal fujjaari wamnun ala ahli bi ma ijaabi loolu nag bi nee na yow yaa am tawféex yi sëriñ Tuubaa liggéey loolu ci liggéey si la siy liggéey rek ñaa ne lii lépp ci sa loxo sottee kon war ngaa sant yàlla bu baax te santaa sëriñ Tuubaa te gën a fetli sa laxasaay te waye liggéey bi te xam ne day dañuy ngi ci tawféex day jee ngërëmu day jee ngi ci ngërëmu sëriñ Tuubaa kon nag sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom nga liggéeyee mi ngi ci sa ndax xam na ne bëggoo ci ku la tagg ragaloo ci ku la xas seere Sëriñ Tuubaa képp nga def ak seere ko moom mi fi nekk moom mi fi nekk rek làq nga ci ngërëmam nee na foo geesoo da nga ko gis mi ngi ci sa kanam nekk sa ginnaaw di ànd bu faw ci lépp loo xam ne lu mu war a taxaw wala lépp loo xam na ko te war koo ànd ak dana ko def nee daal bul am dara looy tiit bul am dara looy jaaxle lépp loo xam ne war na ko ci dana ko def ànd ko yow faw ndax xam na ni dara jiitoo ko ci liggéey Serigne Touba ndax dëkk bi kat Serigne Touba da ko fàggul boppam ñaanoon ni mu bëgg mu mel ni wax wax wax wax wax nam nam bëgg Touba mel ni ak la bëgg musal ko ci kon nag ndegam yàlla def na li ñu laxa saa yu ànd ko mbooloo ñu ci yitte ak posture ak taxawaay dëdd lépp ngir jëm ci na ngeen xam ne Serigne Touba moo leen ci def kon ñu jeexal foofu kàddu yi di la sant di la gërëm di la ñaan ak ñi ko àndal ñëpp salaam mu ni kàddu yi mooy yi Serigne Cheikh Bass wax rek li mu ko waxoon Cheikh Bass ubbee ko ko dara lu dul liggéey bi li muy réeréer li lépp cant gi ci war Serigne Mourlo mu soxna Mbène Gabou mii moo ko moom sunu borom moo ko jaarale moo jaarale tawfiq ndax lépp sunu borom moo jaarale tawfiqu sëriñ Touba ci moom sëriñ Modou Lo mii. ak taxawaayam bi mu taxaw taxawaayam bi mu ni loolu képp la sëriñ bi nee na kon cant gi lépp sëñ Modou moo ko moom ni ko Cheikh Bass waxee léegi rek noo ngi fi wetam di ci lépp nag bépp taxawaay rek nu ko sëriñ Modou Lo bëggee sëñ Mountakha nee na nañ ko àndi noonu ak moom ci wetam nee na noonu rek la demee Serigne bi nee sëriñ bi nee na ma ngi ñaan kon mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp taxawaayu Serigne Modou Lo bii. ci taxaw lépp lu bon mu bëgg koo setal ci dëkk bi taxawaayam boobu kenn ku nekk ci ñun na na ci sant te am yéene ànd koog sëñ Modu Lo di jox ko suñuy xel ñu jox ko suñuy xel ñu jox ko suñuy xel ak sunuy bët ak sunuy taxawaay nekk ci wetam lépp ci wetam ànd koog moom ci liggéeyub Serigne Touba bu rëy bii Serigne bi nee na lii kat moom mënta ñàkk waaye nag lu jafe la nag kon ñun ñëpp Serigne bi nee nañ jàppale sëñ Modou Lo ndax benn liggéey bi rek la muy liggéeyal sëñ Touba te nee na njëriñul ñëpp la njëriñul ñu baax ñëpp la nee na noonu rek la demee sëriñ bi nee na ko ñëpp déggee noonu ñi dëkk ci dëkk bi ku dëkk ci dëkk bi ku dëkk ci dëkk bi ak ak ku aju ci dëkk bi foo man di nekk sa yitte na nga ko def ci liggéeyu sëriñ Modou Lo bii te ànd ceeg moom la cee càkkam kàttan ba dëkk bi borom bëgg sax moom dara mënu ko te am. li ci borom bëgg moom dara mënu koo te am. waaye nag liñ ci war ñun. ñu def ko. te ànd koog sëñ Modou Lo mii. sunu kem kattan jërë ngeen jëf. ne ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan. te bu ñaanee ba noppee itam ne ñëpp dal. allahumma amin allahumma amin.